waaw ouais, j'avoue que comme tous les Sénégalais félicité ko parce que euh, c'est une décision historique bu mu jël décision historique boo xam ne euh, dafay yokk Sénégal ci lu bari tu sais l'image du président Macky Sall est étroitement liée à celle du Sénégal mm-hmm. donc toute décision boo xam ne daf koy jël dafay impacter image yu Sénégal et tey qu'on le veuille ou pas à tout point de vue depuis que mu nekk à la tête de ce pays mais le Sénégal dafa dafa dafa dafa yóg yéeg ci beneen niveau beneen level sur tous les plans sur le plan diplomatique sur le plans euh, sur le plans euh, économiques sur le plan des infrastructures entre autres à tout point de vue da ngay gis Sénégal ci dynamique bi mu nekk donc tey ñu nekk dans un village planétaire comme vous dites parce que réaction yu am à travers le monde mm-hmm. mais dafay plus de 17 000 tweets exactement ah, et, au-delà de sa mais quelle et puis quelle réaction ay des sommités ñi nga xam ne ñoo téye àdduna bi tey ñooy magnifier cela et en magnifiant l'acte du président Macky Sall il magnifie le Sénégal mm-hmm. donc labelu Sénégal la yóbbaat feneen fu am solo loolu c'est c'est le premier enseignement bu ma ci doon bëgg a tirer deuxième enseignement bi bi ma ci doon bëgg defaat moom mooy que pour man les Sénégalais se sont très tôt prononcés et ont fait un mauvais procès au président de la République parce que le président de la République bu amee conscience ci cër bi ñu ko jox mhm. mooy que ne le mandat qu'il la doit servir à quelque chose mais est wax aussi non du parce que timit gis nga politique moo doy waar te le président de la république su génnoon tey rek génn dem dexoon feneen rek les gens l'interprètent l'interprète xam nga sur la base d'interprétation ak léegi Sénégal ni mu demee ñi bëri ñi ëpp ñi gër bëri ëpp ñiy wax xamuñu li ñuy wax amuñu dayo ba amuñu qualification bi amuñu intégrité bi amuñu conscience professionnel bi ça veut dire que daf ñoo toll ci benn dérèglement de notre société ñi war a wax waxuñ fi ñu war a waxee waxuñ ko jamono ji ñu ko war a waxee waxuñ mais le président de la République comme il l'a si bien dit la mu waxoon bind ko parce que son discours aussi dafa am lu muy expliquer dafa wax ne li ma wax nii tey ba ma ko waxee yàgg na ba ma ko bindee yàgg na mm. te loolu la ñu jox tey te tey li mu waxoon aussi l'histoire lui a donné raison parce que depuis que mu wax ne moom nekkul candidat tu as que ni am lu bari lu commencé déréglé wu agitation yi fii euh, léegi lobbying yi commencé nañ entre autres et dites-vous s'il est-ce que tey dina mun a continuer yenn projet yu mu am yenn nangam ak sàngam yu mu am et puis donc pour vous dire en tout cas mm-hmm. que pour man le président de la république li mu def lu rafet la et man li ma gëm moom mooy nag man je suis un un adepte du respect de la spécialisation ñi nga xam ne ñooy seen xam-xam màcc ci kër ci ci ci wàllu yoon ak yooyu wax nañ ni moom amoon na droit loolu moom wax na loolu maintenant nag on est dans une société normée loolu li koy mën ki koy mën a confirmer mhm. wala mu infirmer ko c'est le conseil constitutionnel et àggaguñu foo woon donc pour te dire que ne sa décision nous a fait l'économie vraiment ci ay débat yu futile yu amul solo yu amul jëmewuñu fenn mhm. donc ñu def lu may rafetlu ko pour diir également que ne ah lii mooy Sénégal Sénégalais yi dañu war a bàyyi li Olof Ndiaye di wax da nga gis ñoo xam ne li benn génn kilifa doon wax bërki ne mu ne Sénégal ngay gis ku togg wax ba sa ñeex saf yàpp te doo rey doo ci def yàpp. vous comprenez donc wax rek. waaw mais et si tey les sénégalais devraient man pour man sénégale yi dañu war a taxaw. on est xoolaat nit ñi li ñu waxoon ci Macky Sall fan lañ jaar lii la wax lii la jëm lii lay def ak tey lu mu wax. et puis y' a un ah, proverbe qui dit mais am na ñu doon mais y' a proverbe qui dit voir une fois une fois vaut mieux qu'entendre mille fois te tey ñu doon wax li kooku doon wax. ñu doon jiiñ Macky Sall ne du waxkatu dëgg bu fekkoon ne loolu tey li li waa ji doon wax gafaga ak waxkatu dëggam fëgg na. yàgg na voilà donc mu mu mu nekk lu am solo nag. loo xam ne aussi. Mhm. Mhm. war nañ ci jàngat ne politique nit mun na ko def ak ay valeur politique nit mun na ko def ak ngor. Mm. politique nit war na ko def ak ay valeur yoo xam ne ñoo ngi ko jëlee ci suñu aada ak suñu cosaan parce que soxna si. Mhm. ñun duñu ay. afghans duñu ay russes nous sommes des sénégalais nous venons d'une popula d'une société boo xam ne ancrée ci yenn valeur et valeurs yooyu nous avons cette responsabilité aujourd'hui de leur concrétiser par des actes di ko restituer à cette jeune génération bi nga xam ne ëllëg mooy dem xam nan mooy def gis nga gor hmm. am na mbir boo fa tolloo sa ay veine ñooy contracté pour wax la ne la lii mooy sa yoon am na solo